ñun xam nañ sa dossier yëpp de sa dof-dof lu boobu jaay ko ñeneen sa dossier yëpp lañ xam toog ci bul ñu gis nag ñuy ñuy woote jàmm rek ba nga foog ne leneen la ñoo la gën a pare foofe ñoo la gën a pare fuuf yow sax xam nga ay toog di ñor di ay am naa lii am naa lee te foo dëkk doo fay bañ génnee la yooyu la sonal man yooyu sonalu ma man sombi ma noos euh, euh, poñse ma noos mburu fonde ma noos man yi la sonal yow man sonalu ma waaw kooba bu salte nag ñu koy wax dëgg dëgg dëgg dëgg yow yaa tax lii woo waral nag première jour ba nga bindee sa sinap naan xale bi dama koo bëgg na ñëw ma may ko enveloppe ñu bëri ne ma bul dem ñi ma waxoon bul dem ñëpp tey jii laay doog a xamee lu tax ñu waxoon ma bul dem te dinaa ne leen jërëjëf parce que rëccuwuma lu tax ñëwuma ndax sa un bu ma ko lekkoon nga boole ma sa ñooñu man nag maa gën a pare sa ñii ma ak yow xoolal chaque jour dangay wax jox ma ma wax delloo la boo loo indi rek xoolal loo bax rek ñu ngeer ko